donc Maristox benn organisation la bu œuvrer ci centre de la reproduction moo taxoon ñëw ngeen woo ñu ñu ñëw pour appuyer seen euh, li nga xamante ne mu ngeen di def pendant ces trois jours lépp lu nga xam ne ci consultation gratuite bi ñun moom lañ doon euh, couvrir tey zone bi nag Thiès la ñun zone Thiès la ñu yor Thiès nag district bi mu ngi am 35 postes poste de santé bu nekk dañ ciy intervenir zone bu nekk dañuy intervenir. mais ça dépend rek ci association de jeunes bi bu ñu soxlawee offre de service ci lañ gën a sawar parce que ñun ñëpp xam nañ focus jeune lañ lépp li nga xam ne jeune bi da koy soxla ci centre de la reproduction ci la gën a sawar pour mën a jug lépp lu information conseil dépistage yi cancer du col cancer du sein traitement IST yi planification familiale yi lépp lu jeune bi di soxla on le fait mais gratuitement euh, ñun nag tout le temps lañ koy def parce que man dañ ma recruter uniquement pour pour les jeunes mais on le fait gratuitement chaque jour dañuy consulter moo taxoon ñu doon collaborer ak li nga xam ne mooy CCA bi pour mun a def des activités foofu noonu dans durant tout le mois. ci 2016 maa ngi Thiès te chaque jour consultation yi may def 2016 ba tey mosuñu fayee ko kenn un franc gratuitement lañ koy def. que muy test de grossesse que lépp li nga xam ne jigéen bi da koy soxla ci règles douloureuses yi lépp li nga xam ne santé de la reproduction daal tout le temps depuis lendi maa ngi activité te fii ba le vingt maa ngi activité te su ma paree damay dem CCA pour feebar day offre de service. diñu rafetlu collaboration bi nga xam ne am nañ ko ak waa ACES e kontaan torop ci li nga xamante ne moom ngeen def tey ak rigueur bi ngeen àndal ñun bu njëkk ñun ñoo daan ànd ak suñu équipe def li nga xam ne mooy VAD yi xool nañ ne tey yéen yéen a ñu defal sensibilisation bi soxlawul woon suñu jeunes yi di wàcc di def sensibilisation te nit ñi ñëw nañu macha allah xam naa ne bu doon loo xamante ne pare ngeen ko bu gën a yaatu bi dina gën a yaatu mais. comme xam naa temps bi moo leen ko mayul mais rafetlu nañ ko vraiment ak seen association bi nga xamante ne am na rigueur gis naa collaboration bi rafet na donc di leen ñaan rek saa bu ngeen amatee activité ngeen ñuy woo ñu couvrir leen leen lépp lu nga xam ne ci kii la consultation la jëm. Euh, cancer du col nag comme li ñuy wax octobre rose moom cancer ak cancer du sein la te ñëpp xam nañ ni lépp lu jëm ci cancer moom dépistage yi moo ci ëpp solo nekk ndax cancer dafa nekk feebar boo xam ne dafay nelaw ci yow bis bu yeewoo rek mooy sonal na la. Mm-hmm. amul seen clinique amul lu nga xam ne da lay prévenir pour nga xam ni que lii cancer la. moo tax tout le temps da ngay gis ni nit ñi dañuy appuyer ci li nga xam ne mooy dépistage loolu moo tax ñu créer benn mois uniquement pour def li nga xam ne mooy dépistage cancer du col cancer du sein loolu lañ naan octobre rose donc jeunes yi que muy jeune que muy mag. lépp loo signe boo sentir ci sa yaram da ngay war a teel a dem ñu dépister la ko waaye doo toog sa kër naan dama ragal wala su ma demee ñu gis feebar bi mais ñu gis ko faj ko moo gën nga toog sa kër ba feebar bi am fu mu toll ci yow dootuñu mën a la loolu parce que cancer ñëpp xam nañ ni prévention la wala ñu teel ko gis ci yow te lu teelul gis parce que dépisté woowoo boo dépisté wowul cancer bi dafay sori ci yow te am na fu muy toll faj dootuñu ci mën mënati dara dañuy faj nii nii rek mais après fi muy la jëmee doo ko xam loolu moo tax ñu vraiment appuyé ci li nga xamante ne mooy octobre rose depuis le mois d' octobre ñu ngi def ay dépistage ci poste yeeg képp ki nga xam ne dégg na dépistage cancer du col wala cancer du sein nga dem xool sa yaram wala nga de temps en temps nga dem ñu la koy xoolal même bu le mois d' octobre tout le tout l' année dañ koy def tamit di remercier ACES mm. parce que gis nañ rigueur bi gis nañ motivation bi gis nañ tamit li ngeen xam taxawee nga ko tey di leen remercier bu baax a baax di leen wax ne Maristophes mi ngi fi lépp lu ngeen soxla ci li nga xam ne mooy consultation que mu nekk seen rassemblement yi que ngeen soxla ko ci beneen zone tamit parce que ñu ngi ci région du Sénégal yëpp zone bu ngeen ko mën a soxla bu ngeen ñu woowee dañ leen di boole équipe bi nekk ci zone boobu rek mu jël en charge seen consultation yi di leen remercier bu